نحمده سبحانه وتعالى على نعمه التي لا تعد ولا ولا تحصى ونصلي ونسلم على الحبيب المصطفى والرسول المجتبى والنبي المنتقى محمد صلوات الله وسلامه عليه صاحب الآيات المعجزات صلوات ربي وسلامه عليه نشهد أنه صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته أيها الناس إن يومكم هذا يوم سرور وبهجة وحبور لمن صحت نيته وقبل صيامه وقبل صيامه وقيامه هذا يوم فرح وتهان لمن طابت سريرته وحسنت في رمضان افعاله واخلاقه هذا يوم عفو واحسان لمن عفا عمن هفا واحسن الى من اساء وصلحت بين الناس أعماله وخصاله هذا يوم هذا يوم يوم عيد ولكن العيد في الحقيقة لمن تمسك بالدين العيد في الحقيقة لمن تمسك بالدين وبالمواعظ اعتبر هذا يوم الفلاح يوم العزة والنصرة للإسلام والمسلمين هذا يوم العزة للمسلمين لو كانوا فيه مؤتلفين متحدين في هذا اليوم يتجلى المولى بمزيد الإنعام على عباده المخلصين بالنظر فيه إلى من تاب وأناب وراقب في السر والعنانية ربه ينظر المولى إلى من تغافل عن عيوب الناس ولعيوب نفسه انتبه يعتز يعتز فيه الإنسان بحسن الأدب إخواني في الله ليس العيد لمن تمتع بالشهوات ولبس الجديد ونسي الملك الجليل وارتكب المعاصي كيف يهنأ بالعيد من استقام ومن استقام وتطهر في رمضان وبعده عدل عن الطريق القويم واعطى حبله للشيطان والعياذ بالله عباد الله تذكروا بعيدكم هذا تذكروا من كان معكم في مثل هذا اليوم من الأعوام الماضية من آبائكم وأقربائكم وأصدقائكم وإخوانكم المسلمين ممن رحلوا عن هذه الدنيا ولم يصطهبوا منها معهم سوى ما قدموا من أعمال إن خيرا فخير وإن شرا فشر عباد الله إيه، خذوا من من رمضان دروسا وعبر فرمضان علمكم كثيرا كثرة الصلاة وكثرة قراءة القرآن والصدقة والعطف فيما بينكم والتحابب والتعاون اجعلوها زادا في بقية أيام السنة فرمضان جاء ليعودكم وليساعدكم في وضع خطة الحياة شهر للتكوين ياتي العمل بعده لباقي شهور السنه اجعلوا رمضان شهرا للتكوين التكوين ياتي بعد التكوين الوظيفه وظيفتنا في هذه الدنيا هي عباده الله لقوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين فرمضان أكثرنا فيه من من الصلاة والتراويح وقيام الليل وقراءة القرآن والإحسان إلى المساكين واليتامى والأرامل فهيا بنا أن أن أن, أن نسير على هذا النهج حتى نلقى الله بذلك نكون من الفائزين جعلني الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه استغفروا ربكم وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فهيا بنا أن نفرح كما قال للصائم فرحتان فرحة إذا أفطر وفرحة إذا لقي ربه فها نحن في هذا اليوم يجب أن يعفو بعضنا عن بعض بعد مغفرة الله لنا جميعا وكان هذه المغ... وكانت المغفرة عيدا نتعيد به وسرورا لمغفرة الذنوب إيانا إيانا أن نرجع إلى الذنوب في هذا اليوم الذي غفرت فيه السيئات الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا ولا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى نسأله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا هذا ال هذه هذا العيد أن يعيده علينا أعواما أعواما عديدة وأزمنة مديدة on allah tiga allah komo tiganni cuno allah dangani onati allah ndara a ñampinna ndara allah ni tunkanga gan dara a ñangollungan dara a ken allah ni agati o dangani wona sunkoson cuumu سنقصلي ودا سومو أتاني من بالي ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ننتي سنقصنا أغنى بتون تماندي الله دا نيغو داودا بتون تماندي اتوني كي الله خورندي دي جاغا الله باني خورني كن الله اكبر كي كونغنيا ننتي الله اندر الله خورني هو دايتي الله هو لوخنيا هذا مرم من لوخنيا الله اندان تاغانا ليغي كي نخوندي كمبرنا هاري فريوغا الله أكبر بكونا كما ننتي الله خورني جاخو كنت كسني هولو خيني أهجونا لكني بي أنا متوا أورانا منيا يا خنجم بانا أوران تفوف دعاني أنت كوتا الله ني فخورنا أم فاتي كوتا الله ني فخورنا أنغولي كوتا الله ني تونك خورنا أنكروسي كوتا الله ني تونك خورنا كمبرنا الله أنا كي الله أنا در أنا درو timeniya ta ñamaru ñange aɗo na a kabe hinungani togono ona tiga nemanu kamma bawni nemanu ko ay meda ko togana toy jaten waranti ñamana kembere menin togo ona a tiga timeniya ti batiyenga aliŋunu ñange ada xoso woni togono aliŋu ke ñangen kakadi anta ken nahana de ano ko a nahana a xose ke ona torono, na anta ken torono de me a xose ke ñangenga ano ye torono kembire ngo gana xoso ku alla ga do kaba kubene wo gani nahana oganinya gani ñano torono oganinya gani ñanta hoho torono ke ona wona seede xananti muhammad sallallahu alayhi wa sallam wo seede nantada duntenga xon kiñandi alla gada ñamarti hohoy ya, ada kiñandi ti noxodun qullaxoy ada su kinyandi ada xanu yummoto kisulo arjanna magatini serentarono jahannaba mi be ndabara sere suba rojo hanna bam bari kya batta kenge ike ummaton cullono arjanna mi be ndabara iti ko balla ati be gana bati allo arjanna ibe kama batia anyi membara ike kenken namulla ina arjanna mulla hada mare men cuka humanten dangani kem palle on alla nyaaga alla kana ne mando kisenga bonda ken khayfare maka alla ganno khanya sukkano sukkano da battenga do ay agona hana duna de agona hana al qiyamam kota kem palle alla ko mom wosu nga katinke imme da ka kuncu ko mantenga nan to nan kanu allah allah kan ne nyani sile handanga allah mega to na wutu agana amma ka am bartinan do hoburen cuna allah kan ne sere ya kan tanga amba ne allah kutana me allah kan ne ngana condo mem paga an cimme nan ngana ke golle da bari kota imba ne nyankana khabron no godi allah kan ne ken ko sonta nya barta de ando hoburun naka allah kan ne kan nan nyoko gadi am ga gillina allah bati en bari wakati be anga mulan nan kan ka wakati be ando soronga masala nga wakati be dun kilungu ngatini sabari ada bari adabari tini ayi allah kan nga ngirni katti batinga kembere allah ganna kan lankanne ñangoda bawni sun koso ñimmeri laallakum tattaqun kudo na katti ke allah ne ki tano sondo mum paga agano sondo mum paga no ñogo kati fosirenga me ana barto do fo naka kem pallati allah komo salle ke kota hayde nyakali en kota ñani so en kota ñani me koda ngani serebe ngani nga suro serebe sumu nga suro allah dan cumul laga agada an cike an wurudun cikul laga a baganda an na ñakhali baw ni ñakhali ke manan ne nanti allah ti yampa anga anga bakka sun ko sokedi mo be aw kan tiare ko tanga bangena li duna dandu junubu gamari ida su yampa ho ho gandi ke na kayda bagu kembiro imme duru na ñampa me maka Kenya oga oga tino meda nga onyam pamega Kenya peni ya ona tora numbe go imena ko ni bugu mena ka alla kenda qur'an di na junugun cubagan kembere kenya ni nyakali nga salle ni kenya salle nyakali na sare nyada ngani an chondo meke sun qaso ke gada qur'an Kurandi qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dasaha sare nyanda takan kita aga di sondo meke di na sono ni na qasida gundo huburencu konna gundo hoburencu sare hobure su kan tamma an chondo meke angada qur'andi atanken da takan kita qasare nyam perdi angada nyunki ke warai du lingunya kama kembere nga gang ang Allah lakati ho ken ni hubure nyi ho ga ho bonon dina nga al qiyamang kota ati sallen kota haqiqan sallen kota ken ni be ga tigiti dina nga sunkoso ke gari ado kharangundi tanji keke bitonni nanti sallem pay ona wakati nu osura sallen wakati nu tanga sunkoso nogoni o ma kempe farla nunga oda nahila nunga hay o ma kempe nahila nunga oda qiyamul layl ka hay jaga alla gara kebero kamma ko ta kuttundi ora hoy hobe gan khotay sunkoso ngari oda hoda bari hobe gan khoto ko ta kuttun kallenga oni farlan chalun karagi banay oda nahilan ka hay o ma kan peken o da qiyamul layl kai o ni gilli salli waqtu ni o sa so sage gilli uron desert ni o ga salli ni ja ka hada mare me allah ma allah me gara kebe konan la yukallifu allah nafsan illa wusa ike allah ta horono sere kam allah kan takebe allah gara kebe ro kam mawra wai ado no en tagu ado ado lampun tagu nyatu ada horo kam mawra ga kebe ka yonki shaytani wati no dangani harincha ako tenya na ako tenya ni aga al qiyamam ko tan ko ta ku golluide al qiyamam ko ta sikken nyang ko to ke allah batu kundu sikkenga kembirenga ke ngalla lenki kota ke awa kallanka khunu kati komo e kati malaika nunga nanti a aga ya ngi komo nga ku kundwani ke gadi kabayi ge nga sonko sonki endi iga iga da tokono nga idi idi nyamari ngiri ida khenko ngara isigi ke alla dangani ya gaseran din nanti yampi maka kembere ngona alla nyaga alla ga nyampu su ko mante maka ona tu nanti sunqa e eh, sunqa songa sunqa so nyeme khalla bati nyeme de sun kason kamanni allah mina kason ka kamanni allah de sun kaso lino kharangundiya tanji ke bitono gondi nanti kha hayde kada sallu ko wakati tangade kada salle ke gabondiya de kada buru ko warade iga tan nan cumu sume kehti igan de ngarade awre nan nya nan cumu antoron nan cumu antan nan cumu ankiten nan cumu sun qaso kene qaso nya angara formation de stage nya ngadi serenga na ta stage nganda golliya oda qaso nya stage nga ona daga qaso tamido bana nya gollini kembere sun qaso kharangu kharangundiya nanti hada maram men ka haklante ni bega anga anga hammi tan nyimme woy be nga bakka soron kutum woy be nga maka nya anke nga soron nya khallun ko no ana nya anke nyimme ni woy be nyai lakke nga soron kay kharaga sehni sere dan nan kim kim anna tu nanti sun qaso golli nan ñimme nan jara bakka wattu ɓenu gani ha sida xun dow maxancendu dow besen qonnu do fottananu jikkum po buru na yonki ke nda sonondi bakka kunga kembire na suhunun qaya katti gollenga angana suhunun qaya sondo men kanan qura ana maxa sere ho bureraga an na ñampa soron maxa xoanga allah na ñampa maxa moxoɓe ogana yampa Allah ga yampo ma ken nyanda nya salle nyakali ngureni menen nanti Allah yampa gunundi Allah ga yampa junugunundi kembere nga kenga sanda nyakali kenga se salle Allah ga yampa ya yala ko on ko wona salle ke kota nya junubun kota ngaba a sun ko sonyeme lenki ken ken ke santi mbonte do Allah kute nyani subhanallah aw ga nyang kandu gutai tankura keta ken ke Allah tan nyang kan alhamdulillah anda iran ciru londi an ko tan da fita to an nondi ti Allah ba kute nga donc annam maka sallen kota nya kute kota sallen kota ni nyakali e kota nyakali ko kota ni men nyampame maga na me jura na pinne me na hisuren ga ben dabari na nyakali nan ti jagal junubu suga nyinga ga ga nyakali ndega ne jahanna Allah da su yanke bakinga a gondo hada mar mun nagai awan ngara ga na kan nyampim maga nyampa ga maga angara ho nyinga ngan nyampam maga ngara ho nyinga ngan maga kembere nga ananya yampe duroi ana nyakali yi nyige do minnei kembere ngona alla nyagal Allah ganna kenya ngoda ngani no sun ko nyakenga ken do ken nyakali yi ana ngoda ngani ko tagu manche nanti arjanna ka gadi aga nyakalin tompai aga sugaro na aga nyakali aga igene aka xal mun cukitana kembire ngona ñampa me maxa alla ga ñampo suka humantem maxa mbokk yi ñu sant bur bi subhanahu wa ta'ala xam ne weeru koor alhamdulillah ñu sant yàlla mi nga xam ne tàmbalee nañ ko bismillah dem ba jeexal ko alhamdulillah weeru koor nag weer la boo xam ni dafa ñëw pour jàngal ñu doomu aadama yi jàngal ñu ne yéen day li leen fi indi jaamu yàlla la ba pare xamal ñu tamit ne yéen ya yéen doomu aadama yi xam leen yàlla li mu leen teg lu nekk li yàlla ci bopam mo wax ne la yukallifu allah nafsan illa wusaha teguma doomu adama lu mu munul yow yàlla li la tegon avant koor gi juróomi waxtu julli la waye gis nga ci bir koor gi yaangi julli juróomi nga yok ci di naafi la nga yok ci di qiyamul layl nga yokk si di joxe asaka kon weeru koor dafa ñëw pour delloowaat doomu aadama si islam ne gis nga weer benn weer bi damay ñëw mu nekk benn weer de formation benn weer de stage boo xam ne yépp da ngeen siy dugg def stage ak formation ma dugalaat leen ba ngeen dunduwaat islam dëgg dëgg dëgg di yërëmante di joxante ñi néew doole yi ngeen jox leen ba pare di yërëmante di baalante àq ba pare nekk ñoo xamante ne dingeen ngeen sàmm boo leen bàyyee lekk ngeen sàmm seen bët sàmm seen nopp sàmm seen tànk xamne ne nekul rek bayina lek ak nan waye dina sam sama gemmiñ ci lu dul deug dina sam sama gemmiñ si ay jëwaate ak yu mel noonu dina sam sama beut ci xol lu haram dina sama sam sama tank dox fu lo xamne ne lu lu daganul la sama loxo dina ko sam du laal lu ko daganul kon yoyu yep nak ay leçon yu la wéru koor jangal la kon leçon yoyu wéru koor bu passé dafa bëgg nak nga wat si yenen. onze mois yi des ndax at bi douze mois bu benn weer nekkee formation mu jàngal la ñun ñëpp jàng nañu alquran déglu nañu ay ay ay tafsirul quran dem nañu si ay conférence maanaam dafa mel ni dañu ñëwaat ñu duggaat si islaam islaam jàngalaat ñu sanguwaat ñu ba ñu set bés bii ñëw yàlla ne jéggal naa leen ndax li ngeen doon julli julli yu bëri yi ngeen def jàng yu bëri yi ngeen def seen xol yi ngeen setal wéetal bi ngeen ma wéetal jaamu dëgg bi ngeen ma defal tey na ngeen kontaan tey kontaan naa si yéen jox naa leen yéen ñëpp diplôme ak mention yu baax si ñi nga xam ne sellal nañu si ñi nga xam ne góor góorlu nañu waaye nag moytu leen seytaane day mer ne ñii de yàlla jéggal na leen waaye xaaral bésu julli bi ma puus leen ba ñu nekk si ay mooy yàlla ñu def ko bérébu moyukaayu yàlla ne yàlla comme jéggal nañu bésu julli bi moom xaaral tey moom dafa mel ni dañ maa emprisonné woon tey libéré nañ ma rek naa def lu tooxi doona bu nekk mooy yàlla bu nekk nga def ko bu boobaa day mel ni kon sa weeru koor bi yàq nga ko dafa mel ni koo xam ne danga nga sangu ba set yàlla sang la ba setal la solal la yu rafet ne léegi na nga bég yëg jéggal naa la baakaar yi la waroon yóbbu safara yëpp dindi naa ko effacé naa la lépp gracié naa si lépp kon nga sangu set sol yu baax ba pare nga ñëw sànni sa bopp si ndox bu salte kon mooy ne nga sànni sa bopp si ay haram si wax si jëf di organiser loo xam ne mooy yàlla la kon sa weeru koor ana lan nga si jëlee te yàlla dafa ne laallakum tattaqun li taxoon ma indi weeru koor ngeen ragal ma jàng ngeen alxuraan boo leen jàngee alxuraan yéen laay waxal dafal li bàyyil li am na ñu defoon lu baax préparel naa leen àjjana ñu defoon lu bon safara ngi noonu ñenn ñi tàbbi nañ ci ñenn ñi seen bosa ngi leen di xaar kon yow doomu adama xamal ni yow tam si yoon bi nga nekk bés bu nekk ma jël sa moroom yoo xam ne ëppoo leen doole ëppoo leen xam-xam ëppoo leen daraja ëppoo leen dara xanaa kay waxtu bu ma leen fixé moo jot sa bos tam mën a dina mës a ñëw kon mbokk yi nañ xel ne moom yàlla subhanahu wa taala yërmandem moo moo moo ñu bàyyi fii kon yërmande boobu mu la bàyyi lim la wax def ko balaa mu lay jàpp ndax yàlla nee na bu ma la jàppee dootoo rëcc te kenn du la ramm mënatuloo dellu sax di ñëw corriger di nga ko rëcc waaye du la njëriñ balaa loolu nañ tuub nañ xam ne weeru koor nekkul rek naa sol lu bees naa naa lekk lu neex waaye naa ragal yàlla bu ñu ragalee yàlla ba pare nag suñu digganteeg yàlla bu baaxee ba pare nag xam ne islaam dafa ne sa diggante ak yàlla ak sa diggante ak nit ñi ndax yàlla bu la jéggalee baakaar yoo xam ne sa diggante ak moom la yi des sa diggante ak doomu aadama yi yooyu tam nga bàyyi sa xel mooy ñuy baalante àq. baal àq nit ñi lu la nit def nu mu metti metti jéggal ko yàlla tax ndax bés dina ñëw yow tam di dinañ la gaaral yàlla ngay ne ay yàlla jéggal ma yàlla ne comme ni nga jéggalee gars yi de noonu laa lay jéggalee kon nañ jéggalante nu mu metti metti àddina day jeex lu la nit def mu metti la rek xamal ne Eh, boo ko jéggalee xamal ne yàlla dafa ne ñi nga xam ne ñiy jéggale ñooñu man yàlla dinaa leen fay lu gën si fay kon mbokk yi eh, julli baa ngi noonu julli dafa nekk loo xam ni daf ñuy delloo si yàlla subhanahu wa taala ndax bég bi ñu bëgg nii mooy ne yàlla ñu ngi lay sant di la gërëm si yërmande bi ñu defaral ñu ku tama commencé ko ba eggali ko am na ñu ko commencé ak ñun waaye yàlla def na tey eggale wuñ ko yow mi nga xam ne eggali nga ko joxo yàlla dara defaloo ko dara kon gërmande sant yàlla la ak xéewalu yàlla bu mu la defal kon xéewal boobu bul ko ëlbati si mooy yàlla au contraire da nga ko def war a def si li nga xam ne mooy jaamu yàlla mbokk yi ginnaaw loolu ñu xamal leen ne suñu um, mbokk ak suñu imaam mi nga xam ne mooy imaam raati bi jàkk ji fi ma taxaw nii ki nga xam ne mooy palaasam moo fi nekkoon pendant plus de 50 ans benn demi-siècle bo xamné mu nek fi di défendre la cause de l'islam di wote jëm ci yalla. kooku mu Cheikh Abdoulaye Ba mo wuyu borom euh, barki dembo si àllarba bi wuyu na am France nañ xamné aduna mo mel noonu Yalla dafa ne kullu nafsin ra'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawma alqiyama fa man zuhziha ani وأدخل الجنة فقد فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور يلا دفع وخني أمول كين كودول رك دومو ادمه لودول دي موم كاس لا بو خامني خمني بنكو باسي كي بامو نان موم بوسام جالنا يو ياسي ديس képp kuy dund yàlla dafa wax ni kaas boobu dinga ko mës a naan moo tax waykatu arab bi wax ne kaasul maniyati sawfa yurshifuhu ala karahatihi aasin wa muhtasibu noo mënta mel bu la neexee woy ngay weddi yàlla wala ngay jaamu yàlla yàlla nee na kaas boobu ñëpp dinaa leen ko tegal ñu naan ko kon nag te bu ñëwee nag ah xamal ñaari mbir ñoo am ñi nga xamne di bindon dundon nañu ci lu baax ñoñu de aljana bu kawé mu ngi leen di xaar waye ko xamne dang ko def yépp si moyal yalla xamal ne kon day di ngi ko reccu te reccu bobu dootu la njëriñ waye suñu suñu papa ji ak suñu kilifa bi ak suñu imam bi ak suñu sëriñ bi ndax jangal nañu kon mom dundam plus de 50 ans demi siècle daf ko def yépp di wote jëm si yalla si bikam si li muy bind si li nga xamante lay wax si conférence am si ad waxul yamul sénégal mais monde islamique bi yépp sous raison bi yëpp ba dem ba États-Unis dem France fu nekk ay conférence am boo duggee si YouTube ay waaraatam ñu ngi fu nekk kon moom alhamdulillah dafa nekkoon combattant de l'islam dafa nekk koo xam ne dafa jeexal dundam yëpp li xidmatil islami wal muslimin rafa raayatal islami عاليا في كل مكان حتى وافته المنية رحمه الله رحمة واسعة في الفردوس الأعلى بجوار النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا عبد الله با كان فارسا مدافعا للإسلام وعن قيم الإسلام وقيم الإنسانية في كل مكان في السنغال وفي جميع أنحاء العالم في العالم الإسلامي بل جاوز إلى أن ذهب إلى الولايات المتحدة وإلى أوروبا لنشر الإسلام والمسلم لنشر الإسلام والقيم الإسلامية والأخلاق السامية في كل مكان استطاع أن يعيش مع الناس بحكمة وبمنطق وأنه أيضا أوتي من الفصاحة والبلاغة ما يدفع به كل منكر ويقنع به كل منكر إلى الصواب استطاع بقوة بيانه وبحكمته أن يقنع الكفار أن يقنع كل ملحد إلى الصواب بحكمته ولينه وفصاحته التي اعطيها فإنه كان فارسا بارعا في هذا الفن دافع عن الإسلام في جميع ربوع العالم في كل مكان بقلمه وبلسانه بمحاضراته بكتبه وبمؤلفاته حفظ رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه الفردوس الأعلى بجوار النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا إخوة الإيمان أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم نسأله سبحانه وتعالى أن يجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم اجعل تجمعنا تجمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته سترته ولا هما إلا فرجت ولا كربا إلا نفست ولا دينا إلا قضيت ولا مريضا إلا شفيت ولا ميتا إلا رحمت ولا ظالما إلا قسمت ولا مظلوما إلا نصرت ولا عاصيا إلا هديت ولا جاهلا إلا علمت ولا غائبا إلا إلى أهله سالما غانما رددت برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لجميع أموات المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم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 ورحمة الله وبركاته